Cingan TV mai cinnamon dette Cingan TV mai cinnamon dette وشيخ آه تجاه न बचायोसिया कोई मल Sendang TV My Sendang TV My Sendang

Rasulullah

Tudo you, I'm tive, eu não vou, tu sofreu.

alhamdulillah شفنا وأستغفر الله من شر كل ما به علم لا لمن كل غدة شفنا الآن وأستغفر الله بشر كل ما به عالم يا عالم الرهبتي واستغفر الله من كل ما به عالم يا عالم سألت الله يا نصير عزتي سألت الله يا عظيم نصرتي شفيع المعرفة وأستغفر الغفار بشر كل ما فيه عالم يا عالم كل أمتي فإنك أنت سألتك سألتك عن مريم في وعدتي ولا أسأل الله جل جلاله أن يكون الله بصيرتي ألا تجد به تجد به قد جاءنا عليم عليم عليم فرد السموم سساعة تتوقل فرد السموس السعادة تتوقل سيبقى يقرب بها في موتنا خشعت بطلعة نوره فترى القلوب بذكره تتزود وروى وشفاؤها شمس العلا فهو الندى يا رب صل على الإمام وما ستر بين وبينك رحمته وسيد أبكى الصلاة صلاة وتسليم تسليم على من النور waa ini bi daal bi ci lay moo nekk ci biir teen bi te kenn ñëw ci lu ñaar daal di dem woo benn mbokk nee na ñu nee na ñu woo ko Sëñ ni ko dañoo bëgg daal nga dimbali ñu ngi génne ñu bàyyi ci biir teen bi nee na mu ni leen nangu ko ci waaye rek charte man daal daa am sama doomu lay ñoo xam ne dafa voyagé su dee man ngeen koo xaar daal ba mu ñëw mën naa ko ji ñu ne ko ah déedéet mu di ndax dëkk bi yëpp baal boobu la ñuy woote mën man daal mën naa ko dindi waaye sama doomu ndey bi ñëw war nga dindi baal bi ah dégg ci koy xëcc ah nee bi ñëwee nag ñoom yor waa ji dugal ko ci biir tête mu war a dindi baal nee na bi mu fekk benn daal benn góor moo nekk ci baat bi rek di ko yàq moo nekk ci biir télé nee na bi gars yi dee xëcc di xëcc doomu ndey ji téen benn doomu ndey ji doog wuti nee na bi mu génnee nag moom nii lii laa leen wax yéen taxul man leen dinaa ko waaye sama doom day lay ànd macha allah kon sëñ Bara bàyyiwul kenn ci xadara la ñu ngi nii ñu ngi ko siyaare di nuyu sama fàmmaloo macha allah lii sax waru ma ko wax waaye su ma woyee balaa yi tuuxuma ko danaan la may de moom it ñoo sant ndax xam na ne soo xamul nit ñi ànd ak ay bokkam ànd ak ay sot sëriñ Babacar Sy li ma wax ci baara rek laa wax ci moom kuréelu xool xam ni deretam la ànd macha allah waaye nag li ma ci gën a neex xale yi tànn sëriñ Abdou Karim nga xam ni ñoom dañoo am diplomatie ndax bu dee neexoon ñu ni comme programme Tijaan ay Tijaan rek lañ koy woo waaye mi ngi nii sëriñ Abdou Karim di invité d'honneur bi moom it mu ñëw ànd ak bokkam yëpp macha allah macha allahu taala bu ko defee rek ñu ñëw fekk suñu wuy ji mu tëdd bi leen di bàyyi Ablaye Thiaw di ko ñaanal man nag li ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal mu sant kii man loolu rek laa koy ñaanal bàyyi Ablaye yàlla sant kii ci barke bi salaa salaam waaye ñu ngi ku bëgg lu baax sopp Serigne Babacar Sy bu mag bi laa am ñuy def programme day génnee alalam joxe gàmmu Tiwaawan génnee xale yi def programme li ñu waxoon tey li mu joxe da nga naan bàyyi bàyyi Ablaye Diaw day bàyyi mu dugg dugg ci kër jàmbur yi di dindi poos yi ma jox xale yi fay bi yàlla na ko fay di nuyu nag sunu xarit sunu sëriñ di sëriñ bu sëriñ Malick Seck borom yàlla pas pas a tax ku ñëw ku ci nekk xam na ci li mu nekk waaye fonk leen ak bëgg njaboot moo tax bu bàyyi lépp ñëw mi ngi nii ñu koy jaare soxna si waaye tey jii ñu tànn mu ñu ko rek comme mu ne daal defar programme bi ñu ne daal tey jii incha allahu taala soxnaam la ci raaru hommage macha allahu taala di ko ñaanal yàlla yàlla yokk leeram Serigne Dame Sall moom rek xam naa ne ñàkk buy def témoignage bi incha allahu taala boo ko defee kon daal ñu ngi nuyu nag di nuyu sama yaay ndax mooy yaay daay mu ngi nee toog di nuyu waa daay sa Serigne macha allah ah Serigne Daouda Ndiaye macha allah ñu tànn ko bu nekk invité bi dana ala daw me macha allah ñu ngi di béy Serigne Maguette si la même bi ñu ngi leen taala. waaye takkusaanu Serigne Babacar Sy bi ñuy def fële ca Medina Garaas nit ñi ñoo ko war a taxaw incha allah waaye moom mooy pare ba nee na ngeen ñëw def ko def loolu incha allah suba bu ñu jullee timis rek te këram la ñuy départ incha allah kon bis baa boobu mbokk yi ñu ngi taxaw waaye boo ko defee sama gan gi nga xam ni suñu moo ma ko jox muy ministre yi daaw jóg district ma xam Baye Mara Ndiaye moo ma ko jox district ma xam ma bëgg ci kanam ci président maanaam ñu ndaw bu adhéré si ñoom Muhammad salaa salaam ah, ñu ñu ñu ñu ñu tàlle ko ko ngir yonent bi xam naa balaa di def waxtaan bi maa ngi lay ñaan rek ñu defal ko loolu tàlle ko ko ngir yonent bi mooy allah kon bismillah